Hey guys, it's your boy Marwan. I'm back again with another video. And this video, please, wait, wait, wait, wait. Before you subscribe, like, comment, and share. Malau, Happy New Year. Happy New Year. Yalan ko fake at you. bare bare bare bare bare bare. Please, haral today nga like, nga subscribe, nga setan video bem je, nga soga comment. Disney lens and support bi bu We are back again with another video. Please, at bini, mala ñi Yalan neka. Yalan neka a blessful year, a successful year for y'all. You know what I'm saying? Yal leen some dreams yep, come true See, I've been ni balaa next year mu fake you level level level level Before told non noonu fu kind kawe na kawe yool how we do it. Then nene maire so jàngal suñu national anthem I continue. Oh. 2023 le 3 janvier la lii xewoon Fesca seen playboy of all time baa nekk ni ku reetaan dem safara lu si des suñu yoon nekku ci Romeo Gueye cey love attaque waroon ngaa laaj Jack wala Romeo est-ce que joxuñ ko ñaami joodo non kii ñaami waalo leen ko jox Olof Njaay waxoon jigéen soppal te bul verse 14 ne love them but don't trust them est-ce que foo fëlee fëleekaay bu baax bi la booy noo mënee lii Ablaye yaay playboy original doxaankat am fit taxi yow at bu bees bi time sa demagut ngay break house cey Abdou Jambaar lii la gaay naan signal right jaar left yaakaar tas na te yaxam daw na yahdes man binta ak umi lay xalaat foo faatee aysa sibo an awa ndeysaan sali an fanta degana yas mu ngi dem koma ba léegi ewoogul yo say lu wax jakati ebe kan kantima no. <laughs> amina mu ngay joy ba léegi nopé sun limé dinañ djum aka ñoo bari car ma sha allah gam yana kaadu jee way di mu ne est dafa saaca flooyam bi waaye carit baax na jamono yi la gën rek bay demal tok safur la okay ni bari ñu complain complaini na ata na pose girlfriend wala wuru ko pose na ko pose mi dem ñep gis dina break heart ñu bari ndax ko xamne yow public figure nga mu ne na wax gambian celebrity ndax pose lo ne dina ko affect ci benn bor wala no laissez moi suma xalaat su ne ko man la duma ko def su ne ko suma jabara mun naa ko pose mais bi tam toll na ko foo xamante wala mais daf ko bëgg moo tax mu pose ko moo tax am na benn résine ñu tax mu pose ko because a xam lu may def waaye si man d'accord ma pour mu pose ne nañ ñu yëpp booy yi xaaf bi ay play booy lañ même pas man bari am na ñoo xam ne dañ ko bëgg si personne ko ko nga yooyu noonu lii daal nekkul loo xamante man support naa ko hundred percent but neex na nag it's nice though lu mu def tam real la maybe dafa made of mind am pour push ña leneen yëpp dem mu focus si kii maybe loola tamit su nekkee loola yàlla ne yàlla defal jàmm ñoom ñaar yaa dem because love is not by force love is not for self love is biir heart bi la so soo gisee moom dem ba post lii ne sa important na simo so ne ko nyana jamu nen ba tako gane jabar abdou jambar salut to you takayi ñu leen di wax tamit happy new year yalla nañ ko fekkee at yu bare bare bare 2023 bi mu nekk successful si ñepp nekk blessing ak jaama wër gu yaram dem kanam y'all know the vibe y'all know how to do it you <laughs> Ça fout la